Thank you. leen bu baax a baax xam naa ne namoon ngeen ñu waaye namoon nañ leen ndax euh, nii ñu koy defee ma jiili man dama koy namoo te xam naa ne moom tamit noonu la koy namee yéen tamit noonu ngeen ñuy namee ba tax na tey la samedi ñu fas yéene jàkkaarloog yéen waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni mooy bilan de l'écurie bi balaa ñu ci yegg si dama koy bàyyi moom mu nuyoo Ba ji maa ngi lay siyaar. Euh, Ousseyn maa ngi lay fay euh, di nuyu suñu mbokk internet di seetaan wasaare lamb yëpp ñi leen safoo ñëpp ñu ngi leen di di leen màggal ci ci weeru mbégte mi di leen siyaar bu baax a baax a baax di ci baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla suñu borom moom mi nga xamante ni moom rek moo am jéggal yàlla na suñu borom boole jéggal eh, di ngi waajal jëm Tuuba eh, yàlla na ñëw dem ak jàmm eh, ñibbisi ak jàmm bépp xewal boo xamante ni bëgg nañ ko yóbbu ci dëkk bu sell ba yàlla na suñu borom kàttanal doole ñu ba defee ko ñu ko bëggee barke Cheikh Khadim Ousmane lay fay bu baax a baax a baax di la siyaar noonu lañ koy defee sax. Hmm. tey nag dañoo ñëw suñu xaw suñu yaram xaw a sawa tuuti waaye ñu ba ci digg bi. Hmm. ñu jot léegi benn coup téléphone boo xamante ni nii ndeysaan suñu xaritu papa boo xamante ni suñu papa la. Hmm. mu wàññeeku léegi ah, xaw ma lay suñu yaram waaye teewul tamit gannaaw dañuy jàkkaarloo ak yéen duñu mën lu dul. chaque jour di leen bëggal rek. Hmm. ñu koy jaale ñi nga xamante nii mooy mooy mooy waa Parcelles yëpp di ko jaale ñi nga xamante ni mooy ñu ñoom Ibou Ndaw di ko jaale ñi nga xamante ni Cheikh Ndaw. Hmm. ah Kéba su ma limee damay juum. Hmm. looy wax ci loolu bàyyi ji waaw tiis la boo xamante ne ndax du métit euh, métit la tiis la ndax du naqar. suñu borom lépp lu mu def rek euh, euh, neex nañu gënal nañu parce que suñu borom du jël mukk Ouzin li nga xamante ni moomu ko. Mm-hmm. Euh, ñuy jaalewaat bu baax a baax a baax famille ndaw ku lim juum ñu leen di jaalewaat bu baax a baax a baax di ko teg ci loxoy njaal bi di di ko teg ci loxoy Léwo ak Cheikh Ndaw Kéba Ndaw ak abdu Abdou Abdou Aziz di leen jaale seen baay boobu nga xamante ni génn na àdduna léegi laa ko jot Ibou Ndaw moom woo téléphone wax ma ko mu doon loo xamante ñu fay yegg léegi di ko ñaanal yàlla suñu borom eh, yërëm ko ta xare ko àjjana ndax bàyyi la boo xamante ni Ouzin saa yu ma duggaan ci jàkk ji dama ko fay fekk eh, mu doon koo xamante ni nitu diine la nitu lislaam la te yar na njabootam ci diine ak lislaam jàngaleel alxuraan ñuy ñu koy ñaanal rek eh, barke alxuraan boobu yàlla na ko topp ñu koy jaale ñëpp ñëpp ñëpp ñu nga xamante ni ñu ngi dëkk Parcelles Assainies ñu ngi leen suñu baay boobu mm-hmm. am na solo di leen ko jaar bu baax a mm-hmm. li fi def rek mooy ñu sànni ko ay ñaan. Mm-hmm. tey nag ñu ñëw di waxtaanee ci équipe boo xamante ni mën naan ay ndaanaan la fa nekk. Mm-hmm. muy équipe Thiaroye Cap Vert. Mm-hmm. su ma nee équipe Thiaroye Cap Vert xel yi dina bi xel yi dina dem ci ki nga ni mooy Treize Ndir. xel yi ni mooy Ahmed Deme. tey nag ñu def bilan boo ni mën naa ne bilan bu baax la. ndax trois combats lañ def. trois victoires. noo gisee boobu palmarès. waaw bu ñu nee équipe Thiaroye Euh, di nga xam ni euh, caaray baaxoo nañu doon benn écrit euh, doonoon mbooloo moomoon bokkoon nañ ci ñu moom làmb mooy nuyu sama papa as bekaay di ko ñaanal yàlla suñu borom guddal fanam te mu ànd ak wér bi mu demaan entraînement caaray da daan wax naa ni fii roi des arènes dina ci génn mm-hmm. ngir champion yi nga xamante ni daje woon nañ fa mm-hmm. boo tuddee isaa Pouye tudd Khadim Ndiaye tudd Baye Mandione tudd nees tudd euh, fëgala tudd ñoom ñëpp nga xamante ni tey dañoo booloo woon doon benn say Ousmane Diop euh, tudd ñëpp ñoo xamante ni dañoo booloo woon doon benn say euh, di di nekk ci lépp li ñu nekk rek mooy bëgg couleur li nga xamante ne mooy caare yéeg jëm ca kanam mhm. xëy na nag réeroo ak ak ñàkk ñàkk déggoo du ñàkk ci mbooloo du ñàkk ci équipe ba waral ñu ñu xaaj seen yenn écrits yi ñiy dem Langsar ñuy dem caaray géej ñuy def caaray Cap Vert tey ñuy waxtaanee écrit bi nga xamante ni ak caaray sur mer mooy ñuy mooy caaray géej waaw mu doon loo xamante ni tey euh, ñoom yëpp écrit yi euh, dañoo booloo doon benn mhm. waaye nag euh, xëy na ku ci nekk rek li ngay li nga beru sa écrit bopp li nga beru sa wet du ngeen bëre seen biir naam mais ku ci nekk mu ngi bëgg a yëkkati couleur Thiaroye ba fu ñu tuddee lim bi tudd Thiaroye Cap Vert xam nga ni euh, xale bi di Ahmed Deme mm. nga xamante ni champion la ci làmp bokk na ci mbër mi ma njëkk a gis Ousseyn bu daanaan yàbbi président bi sax ko ci cat bi mm-hmm. euh, stade Diop Iba sama xol da daan sedd parce que dama ko daan gis fan ko xaay euh, moo lay wan ne euh, loolu stade Amadou bari la woon mu mbot ko mbot bu rëy macha allah drapeau boobu su ma jubloon ñu ngi ko tuddee euh, Demba Dia ñu koy ñaanal yàlla suñu borom ndeysaan <laughs> billaahi moo tax ñu koy ñaanal yàlla suñu borom yërëm ko taxaare ko àjjana Ousseyn mu doon mbër moo xamante ni dafa amoon dafa am caaju làmb moom Ameth Dème mm-hmm. dafa am stylu mbër moom Ameth dem mais technique mën a bëree macha allah parce que boo xoolee Ameth dem Biréchili nga xam ne combat boobu xoolal keroog am de bëri bi mu rëy bi mu bëri Birichili ba daan ko jël bu rëy boobu ak Birichili nu mu mel ci mbër la am ci bëgg a def waaye hmm. foofu maa bëgg ñu def ko entre parenthèse ndax Jaaga Cap Vert dañoo ne équipe boo xamante ni ay hmm. naanaan dañu faa nekk hmm. te dafa am loo xamante ne da leen di tënk te dinaa la ñëw ci seen ñetti combat yi am ñu doog ñëw ci Ahmed Dem doog ñëw ci ki nga xamante ni mooy Treize Ndir doog a ñëw ci Reug Reug ñu am nañ fa trois combats trois victoires Papa Kane 2 bëri na fa Hmm. kii di capitaine bëri fa am fa ndam. ci hmm. di booy Udo Bas tamit bëri na fa am fa ndam. Hmm. mais dañoo gis Saara Cap-Vert kii di trésorier numéro 2 trésorier numéro 2 daa doon woon toog un mois yu mu sëggul bëre. léegi kenn gisatu ko ci làmb. te ba léegi dafa mel ni mbër la ndax moo ngi yor moo ngi wàcc ci làmb ci ci géewu làmb. chaque jour yaa ngi koy gis mais mënu am combat. Mhm. lan mooy problème bi lan mooy problème mu ñu dem ba ci taxaw xale yi fekkaat leen fi dépassé leen bëgg bëri mënuñoo bëri. Mhm. lan mooy problème bi Baye Djily lan moo koy faral di wax. xam nga mbër bu lëloo day màgg daan. Mhm. Ousseyn mbër sa su ne booy lëlu rek boo génnee ci làmb boo ñëwee dugg ci géewu làmb war ñoo xam li nga ñàkk ak li nga am. waaye ñàkk bëre bu yàgg arrangé wut sportif. Mm-hmm. du mbër mais ci lépp loo mënti nekk rek ñàkk koo def euh, wóorul. Mm-hmm. parce que boo xoolee treize ndiir numéro treize numéro deux moom nga xam ne champion la. mbërëntaan la mën na bëre am na qualité yoo xamante ne gis nañ ko ci moom xëy na mu dem ba ci tuuti am ay quelques tolof tolof yoo xamante ni mënu ko tuddee tolof tolof sax mais quelques rëq-rëq yoo xamante ni day mën a dellu siwaat rectifier erreur mais adversaires yi ñenn ñi dañ la fi bàyyi parce que li tax mooy boo mënee bëre mm-hmm. weex am ginnaaw. Euh, pour nga pour nga am adversaire ci làmb dafay jafe. Hmm. mais li nga war a mën a def mooy àdduna saa yoo bëggee ñii mënoo leen jot. am na ñoo xamante ne ñu ngi ci suuf te bëgg nañ nga may leen loxo man pour man euh, moom li mu waroon def moom Treize Ndiaye numéro de dafa waroon wàcc ci suuf. xool ñi nga xamante ne ay rakkam lañ te bëgg nañoo bëre moom naam mu def le tout pour bëre parce que loolu mooy importance mbër. dogu ma la yàlla mu ko. mu ne mbëy ay tàppat lañ. Euh, nga xool ku mel ni Pape Mor Lo tey nga gis champion bi mu doon ci làmb ak ni mu mënee bëri tey gis nga lekk na wërsëgam ci làmb ma nga États-Unis bare na ci ñeneen ak ñeneen xoolal Paul Maurice Ouzin làmb am ñoo xamante ne yàlla suñu borom mooy dogal dañuy mën a bëri lool te mhm. ñoo xam ne yàlla suñu borom mooy dogal dañuy mën benn technique mën nañ koo mën ub ci làmb Mm-hmm. am na ñoo xam ne yàlla mooy dogal tey ñu mën lépp dem ba ci kaw euh, doon roi de arènes wala doon champion te bi ñuy départ ci làmb ñu bari euh, yaakaar nañu loolu euh, boo xoolee ci Modou Lo bi mel noonu moo lay wan ni fi mu toll nii écurie Thiaroye Cap Vert bari na ay ndaanaan yoo xamante ni ñu ngi ci écurie ba ay champion yoo xamante ni ñu nga fa ku ci mel ne Ahmed xam nga ni diggante moom Valdo daanaka mënoon nañoo wax ni làmb ji jeexu ma mm-hmm. parce que mbas mi moo ci ci dimanche bi ñu waroon bëree euh, ci dimanche ci samedi boobu la ñu annulé activité yëpp yoo xamante ne day dajale ay mbooloo. Mhm. Euh, mu doon loo xamante ne xëy na ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk pare woon na ñu doon ñaari xale yoo xamante ne ay jàmbaar lañ Valdo champion euh, carrière làmbam mun nañ ni daanaka def na lu mat onze victoire benn défaite la am ki ko daan mooy Garga 2 mu doon champion boo xamante ne kenn du ko wéral Ahmed dem tamit mbër yi nga xam ni dañoo jàpp ci làmb bi ñoom moo leen daan xam nga ne bi muy daan Brésil Brésil bu mu ci digg dooleem te bi muy daan super jamono super jamono boobu jamono jooju kenn du ko laal. Mm-hmm, mm-hmm. ak yeneen daanaan yoo xamante ni ku lim doo juum mais dafa dul matal mu doon loo xamante ni tey ñoom écurie Thiaroye Cap Vert war nañoo mën a euh, dellusiwaat ci làmb euh, ñun su caar yi vous savez man su ma sañoon. caaray dañuy booloo doon benn euh, ñu booloo waxtaan te xam naa ni du yàgg tuuti incha allah rabi ñu ngi ci parce que ku ci mel ne bàyyi ma njoon seen kilifa ak yeneen mbër yi nga xamante ne ñu ngi ñu ngi ñu waxtaan di daje seen biir ngir rien que bëgg yi ñoom ñëpp ñu doon benn euh, doon benn écrit mbooloo mooy doole ñu góorgóorlu bu baax a baax a baax man loolu moom maa leen koy ñaanal euh, parce que yaakaar naa ni xiiroo be ngaayoo be écrit fii écrit fee amul sens te bokkul ci loo xamante ne day defar làmb tey xam nga ni ku mel ni bàyyi na leen da ngay mm-hmm. boo xoolee diggante Reug Reug euh, ak Gris 2 rek keroog arène nationale mbëri caare yëpp dañoo ñëw dooleel Reug euh, nga xam ni tey am na fu leen làmb yu toll kon loolu nag ñu koy def booloo ba doon benn équipe day gën a neexal day gën a baax day gën a ñoŋ ñu leen koy souhaité di leen ko ñaanal di wax ni palmarès bi baax na. parce que bu ñu defee trois euh, trois combats. trois victoires euh, ci mbas mi fi mu toll loolu moo gën ay dix-sept combats euh, di am ay ay ay quinze défaites wala ay yu mel noonu am trois combats am trois victoires xoolaat bu baax a baax a baax ba taxawaay la ñu indi ci làmb am na solo bu baax baax ñu leen di félicité waat bu baax a baax encore une fois. ñoom waa euh, ma ñëw damaa dégg léegi nga wax Valdo Ahmed dem xam naa dem nañ ci may tuuti ndax xam naa ne vidéo boobu génnagul ba ki démb seeti naa ki nga xamante ni mooy Valdo waaye nu mu tuutalee Ahmed Deme daal man jaaxal na ma fa mu ko teg. ak la mu ko wax <laughs> nee da ko club bi koo jàll fi mu toll yi bi ma demee bi ma limalee ñu bëgg a bëre ay Malick Niang la ma wax ay Forza koo ko tuddal ku mu xaw a neexoon mënoon a wu ma ko. ma ne ko yow ci combat bi nga jëm ni yegguloo ci mënoo ma li ma la wax. loolu leneen la loolu kii naa ko ba noppi. Hmm. leneen laay wax ma di ko waxee ne nag am nga combat ndax ku xam amee dem xam ne du nooy neexu kenn ni ko mbay di waxee du ma nooy neexu kenn. Hmm. te kenn lekkuma ginnaaw kenn nag. Hmm. Ameth Deme daanaan la champion la. mu ñu jëm ci combat boo xam te wóor nañ ko bëggee comme ni nga ko waxee waaye. mbas mi ñëw lépp la nga xamante ne taxaw na mu nekk ci àdduna bi mbas mi daa ñëw puus la neen damay jàll ba noppi nga doo ko topp sama gannaaw di leen ñaanal saison bi tëj ñu bëri koog jàmm ak salaam Ameth am na combat tamit bu neex ñu ñëw ci Reug Reug dafa yëkkatiwaat écurie Thiaroye Cap Vert hmm. ndax boo xoolee bari na bari woon na bariwul woon écurie yoo xamante ni danaan am xale boo xamante ni da daan toj lutte simple bi hmm. tax na xale yu bëri lutte avec simple lutte lutte lutte lutte sans frappe hmm. ba di ko booleeg lutte avec frappe mu dox ci jéego yoo xamante ni da ngay entraîné ba taxaw ñëw sumee ko ba mu ñëw am xar benn xar kanam bu mu ci àndi bañ xam ko ci ba nopp mu doo ko dugg ci liit avec frappe bi jaxase ko nag su mu nee jaxasa maanaam fekk fi ñu fi gën a ës mu dugg seen biir kenn nangu koo jël nañ ko wax te dee ndaanaan la xale la te ku ku ne rëgg nga am say mbokk kat dinañ waaj bu baax a baax ndax dañuy xam ne ndaanaan nga am lu ñu gàtt dégg dégg dégg di nga dégg rëgg hmm. boo déggee mu ne la matuma lan lan la koy waxee sax matuma 1000 kilos matuma 1000 kilos wala matoo waaw léegi am na gis naa am na beneen bu mu génnee waaye yooyu yëpp ci ay slogan la waaw slogan wu mbër la day neexal làmb te ku ko gis xam na ndaanaan la ndax li li làmb laaj loolu lay def boo amee moom combat dina la wax joo xamante ni nii ñëpp dañ naan dafa réew mais du réew day jaay bés Balla Gaye nii la ko doon defee keneen ak keneen noonu la ko defee mu ñëw topp ci tànk yooyu làmb mbër da koy jaay ba noppi balaa bés ba bu bés baa bu nit ñi ñëwee nga def fulaak fayda lu yàlla def ñu xam ne noonu la mm-hmm. mais Reug Reug ñëw ci mm-hmm. def ci loo xamante nit boo du mën ne nit mënu ko mosu cee def mais gëj nañ koo gis ci lutte sans frappe bi mm-hmm. noo jàngatee par carrière euh, Reug Reug dafa nekk mbër moo xamante tey euh, dafa xëy bi mu amee yenn gabari lu mu nekk euh, mu nekk xale di bëre mu ngi doon génn ci lutte simple bi di jël. Mhm. doon jël tout temps doon jël parce que man euh, jour bi ñuy xamante man ak moom wala jour bi ñuy njëkk a man ak moom di gisante sàngal kam loolu muy premier combat am arène boo xamante ne. Mhm. promoteur ba fàtte naa tur bi euh, signature contrat la doon def euh, moom ak métro bu dóor dóoraat mais combat boobu bu jëwul am. Mhm. li taxoon mooy dem nañ ba ci digg bi déggoowul ak promoteur bi mu jékki-jékki am ay malentendu. Euh, seen biir après combat bi noonu la mujjee yàqu mais depuis boobu avant boobu maa ngi koy suivre boobu la année boobu la topp di daan ay champion yoo xamante ni kenn du leen werante ci làmb hmm. xam nga benn année nga dugg si ci première fëllam bi mu fël dugg ci cour des grands jàpp euh, ki nga Ablaye Ndiaye daan ko hmm. euh, daan di Ndiaye jël mbës bu dóor du rat daan ko fekk fa champion yu bari ci làmb nga jël leen daan leen jour boobu maa ngi fàttali ko kii moo ko daan final waaye Euh, dina ñëw dina ñëw euh, mu doon euh, mbër moo xamante ni keroog bi mu koy daan final bi ñoom ñaar seen làmb neexoon na trop mu lay wan ni Reug mu ngi doon def ay jéego gis nga depuis mu jógee ci final boobu ba léegi pour nga daan ko ci làmb da ngay day doon tout mhm. ci yow li ko waral mooy sérieux ci boppam. bu mhm. dee Reug Reug boo ko gisee ci làmb mu sumeeku da xam ne macha allah. dafa liggéey kàttan da koy xool xam ni macha allah kii mu ngi liggéey te caaxaan te làmb kenn du ko fooye mm. ñàkk fooye boobu nga koy ñàkk fooye nag moo waral tey lutte simple bi mu bokk ci ñu ko téye mm. euh, li li li li mbër mus def ci lutte simple def na ko jël na ay champion chef de l'état doon na fi champion CEDEAO boole na fi ay euh, champion yu bare bare bare doon ko mu rëgg mu koy ñaanal ak yàlla may ko mu kattan ak ak ak mën-mën ba mu yeggaleeg sagom parce que làmb loolu la ne rek dañuy bëgg mbër mi nga xamante ni mu ngi ci euh, mu ngi ci ci dynamique bu baax bu góorgóorlu ba ba ba entraînement yi nga xamante ne mu ngi ci bu génnee bu ñëwee ci làmb luy mën di gis saa su ne euh, yokkute boo xamante ne moom mu koy waaye am na adversaire boo xamante ni euh, wolof def na boo tëbee ba dal ci xaal dese na la beneen tëbi muy guy gi guy gi nga xamante ne bi muy dugg si ci làmb ñu bari dañu wax naan Ouzin benn foor la am mm-hmm. benn fooram boobu Euh, père Birahim doon na ko wax moytul moom mbër mu naan benn for la am benn for boobu fii mënoo koo tëj euh, lu ne mën na la cee dal. Mhm. Euh, yaa ngi fàttali ko jour bi mu toogee ci ci plateau daan kii di Bébé Saloum bekkaay ni ko eh, ñu bari dañ naan buddi bi rek nga mën mu ne maa ngi jéego yëkki ne dama baal mais su ma ko jàppee dina jóg. Mhm. mu gëm-gëm gu mu am la. tey mu doon loo xamante ni gëm-gëm la. Mhm. te ans ci ginnaaw wala trois ans ci ginnaaw. guy gi mi nga gisoon muy ñëw nga gis macha allah mu boole ci yaramam loo xamante ni bokkul woon ci yaramam. Hmm. boo xoolee moom sos boo xoolee moom tafaatil boo xoolee moom nees boo xoolee combat yu bari ba ci booy ñam guy gi mi ñu waroon gis gisuñu ko. Hmm. mais boo gisee guy gi mu bëri si te keroog nga xam ne guy gi vraiment dellusiwaat na ci état de forme bi mu yoroon boo ko gisee keroog yooyu ñu ngi koy gis états-unis vraiment mu entraîné. nga xam ni kii am na lu ko combat bi jaral mais loo ci mën a xam mooy ñaari xale lañ ñaari ndaanaan lañ euh, te que le meilleur gagne incha allah rabbi xam naa ni dinañ ci gën a jàngat jàngat bu waxtaan ci. ma tuuti yaakaar nga combat bi gaaw. guy gi rëgg. waaw. mun na mun na gaaw parce mun na gaaw mun na yéex mais gëwuma ni combat bi dina dina yéex ndax ragal naa ni bu arbitre sifflé ku bëgg ku ko wéttali ak ku bëgg fu fanaan. ubal bunt bi di leen doole ragal naa ni ñoom ñaar dinañ daje dañuy daje ñoom ñaar parce que ku ci nekk guy gi gëm na ni euh, moo mën Reug Reug mais Sénégalais yi gëmuñu ni Reug Reug guy gi moo ko mën te guy gi te Reug Reug gëm na ni moom dix guy gi buñ taxawee mu daal leen te Sénégalais yi am na ci ñoo xamante ni gëm nañ loolu ku ci mel ni Babacar borom Espagne keroog mu may woo ci appel vidéo bi expliqué naan ma guy gi rek rek naan la naan sàmm nañ ma ne ko làmb la boo xamante àdduna ñoo ko soxla te defal nànk rek bu ñëwee yéen ñëpp di ngeen ci kontaan surtout waa diaspora bi Ousseyn dañu woon namm combat yooyu bëgg saison bi ubbi ñu ngi ñaan rek euh, octobre boobu yàlla na saison bi ubbi. ñu dellu ci man de bu ñu ma laajoon dama naan combat bu metti lay nekk te bu yàgg ndax ni ko làmb jee ba bàyyi coow. làmb ji suñu la Lamine Samba dugg na ci wax ci ay wax mais loolu lépp bëggoon làmb ji taxaw la. ndax lii la ci bëggoon ndax combat dafa moo ni ma koy waxee chaque jour lii am ci jàmmaarloo looloo loolooy doxal làmb. Mm. il faut mu am coow débat pour mu neex làmb ju yàgg ju neex ju metti mm. xam nga la may fàttali. Mm. guy gi Ama Baldé te dañ leen ko defal lii la leen àndaloon ci bi nga xamante ne mooy équipe Thiaroye Cap dinañ leen ko defal ci yeneen écurie tey nag ñu ñëwoon andil leen daanaan yi nga xamante ni dañ leen gëj a gis wala boog amaana bëriwuñ wala génnuñu ren amoon nañ combat waaye combat yàqu na ku ci mel ni Ameth Dème euh, Reug Reug jotul am komba moo tax it saison bee gàtt waaye ñu leen koy dikk daje rek ak yeneen jàngat làmb ak mag Baye Djili Baye Djili looy tàggatoo. waaw di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di leen tàgg ci tàggatoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo ba ëllëg allah ci beneen xeexu